aus billahi min asheytaani rajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi alqaail qul yaa ibaadiya allazina asrafu ala anfusihim laa taxnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru sunuba jamihan innahu huwa alqafuru rahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ tubaa cheikh mohamadul muntaxa yàlla na fi yàgg lool tànd ku wér noo nga ñaanal Serigne Cheikh Mbackeem Serigne Saliou sunu bunt fa moom yàlla na fi yàgg lool tànd ko wér mbokk jullit mbokk taalibe yi gi genn kàddu rek la te mooy fas yéene jëfe njàngaleem Serigne Touba ci diggante ab taalibe akub sëriñam te nee na ñetti tomb rek la mooy sax ci jëfe ay ndigalam sax ci wattandiku ay tereem te sax ci di sàkku mbigam loolu nag moo sabab lépp loo xam ne def nanu ko baana wax ko baa nu doxe ko baa sax nu xalaat ko ba loola nuru lu jur safaanu mbégum sëriñ bi noo ngi ko koy tuubal noo ngi tuubal Cheikh Mouhamadul Muntaxa tuub gun seereloo àddina goo xam ne lépp loo xam ne wuute naa ko bëggam rek baa mu wuuteeg luy jur mbégam rek noo ngi koy tuub noo ngi koy tuub noo ngi koy tuub te yéene yeesal nag doon ay taalibe yu bëgg Sëriñ Tubaa yu gëm Sëriñ Tubaa yu doyloo Serigne Touba yu sax ci liggéeyee Serigne Touba Serigne Touba rek la ñu yaakaar te sunu pas-pas sunu digganteeg Serigne Touba duñ ko kocc dara te it fas yéene wunoo juyaloo ak ndigalu Serigne Touba te juyaloo ak sa ndigal mooy firi juyaloo ak ndigalu Serigne Touba te duñu dal ab taalibe nag ak matadeem moo ko tax a soxla matuk sëriñ bi kon looloo nu boole ak sa jëmu ju tedd ji ab taalibe itam néew kattanam moo ko tax soxla kattanuk Serigne bi. sunu njuumte yi ak sunu nëngte yi moo na tax soxla yërmande sëriñ bi ndax sëriñ Tuubaa moo ni woon lawlal maxaas yi la daaxati raxma bu du woon sunu njuumte yi ak sunu nëngte yi kon yërmande yàlla dana sànku kon Mbàkke noo ngi sàkkuwaat sa yërmande di sàkkuwaat sa njëggal te di la tuubal ci lu nu xam nag ak lu nu xamut ndax nun ay taalibe la nu doon te moom lañ fas yéene doon faaw noo ngi lay sant nag bu baax ci joyanti gi ak jubbanti gi ndax sëriñ Saaliwu moo ne woon sa borom de moom saa yu tuddee say ayib dalaa fas yéenee jéggal waaye sa mbokkum sa mbokkum jaam su tuddee say ayib nag dalaa fas yéenee weer te nun day mbàkke jàppe la sunu morom dan laa jàppe sunu borom te loolu moo dëppoo ak njàngaleem sëriñ tubaa ci diggante ab taalibe akub sëriñam nem mat nab sëriñ nee na am murit su bëggee jariñu ci ab sëriñam nem mat nab sëriñ day fas ci ab xolam ni moo dox digganteem ak boroomam innal murida isaa araada am na yaxtaxidu anna sayqahu waasitatun baynahu wa bayna rabbihi sëriñ Saaliwu teg ci ni te ko dox sa digganteeg sa borom nag da koy xoolee ni sa borom ndax looy am ki sa boroom ki sa loxo lay jaar te jotaay boobu yaa ko tooge ndax mooy jotaayub sëriñ Tuubaa bi te mat ko sëkk kon nag boo tuddee suñu ayib wóor nañu ni ak njëggal képp nga nu yéene akuk defaru kon noo la ciy sant bu baax kon noo ngi lay tuubal lépp lu nu xam ak lu nu xamut tey sant tey ñaan nga yàgg fi lool tànd ko biir képp Serigne Béthio jërëjëfati Serigne Béthio asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi yéen mbokki waa àdduna maa ngi nuyu ñëpp ay di jiital ci nuyoo bi Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides di ko nuyu bu baax te di ko sant di nuyu it Serigne Cheikh Saliou Mbacke moom mii ñu bunt fa moom ko ñaanal yàgg fi lool te wér euh, kaddu yi day day kàddu ndongo kaddu taalibe goo xam ni euh, amul lu dul Serigne Touba te it bëggul lu dul Serigne Touba te lu dul Serigne Touba it yitteelu ko kaddu yi nga xam ne nag moom laa yëkkati muy kàddu tuub ci sama diggante. ak xalif général des Mourides muy sëñ Muntaxa Bachiru Mbàkke di tuubal di ci lu ma xam ak lu ma xamul di tuub ci lépp loo xamante ni euh, dox na fi te muy loo xam ni kat ak matadi doomu aadama la maa ngi ko ciy tuubal bu baax di ko jéggalu wax ne man day ci ndigal rek laa aju moom day li ma ko wax rek day sëriñ ci ñun ndax moo fi toogal sëriñ Tuubaa day woy jurit ci ñun lépp loo xam ne doxin la wala waxin wu dëppoowul ak li muy digle maa la muy tere moom day ñoo ngi ko ciy tuubal te di ci tuubal mbooleem umma islamique bi waaye di ci tuubal mbooleem yoonu murit moom daal maa ngi tuub maa ngi tuub maa ngi jéggulu te di ko seereel sëriñ Tuubaa ne tuub naa lépp loo xam ne lu ko naqaral ndax yitte bi day du def lenn lu ko naqari maa ngi wax ak nag sama mbokkum taalibe yi nga xam ne maay seenu jëwrin di leen wax ni moom day di xalifi bëgg rek moom de lu mën nañu moom la bëgg mbaa lu mën nañu moom la bëggul ci loolu lañu fas yéene ne tuubal ko te déglu ndigalam te dégg it li nga xam ne mooy ay tareem ñu moytu ko la nga xam ne mooy ay ndigalam di bëgg-bëggam ñu soobu ca maa ngi leen maa maa ngi nuyu ñëpp di santaat bu baax te di ko ñaanam mu yàgg fi te